Babacar Karchando, mon directeur de publication Les Échos ndax nga rédacteur en chef du journal Les Échos ndax mën nga ñëwaat ci li xew. Euh, waaw ni ngeen ko bon 14 h 30 on lañ ma informé ne am ñoo ñi ñëw fii ci journal bi attaqué ko yàq bi ay machine ak quoi aussi constaté donc salle de rédaction bi kasi yàq nañ fi lu cinq machines sama machine u bopp ak bu monteur bi nga xam ne beneen salle lañ nekk yàq nañ ko aussi donc mu nekk lu doy waar loo xam ne vraiment xel gi mënuñu ko nangu daal ci suñu liggéey bu ñu sukkandikoo ci li ñu jot a dégg ñu ñi nga xam ne ñoo bokk ci daayira Moustarchidine wal Moustarchidaty ñoo def lu ni mel ndax jàpp nañ ni da ngeen a déclaré ni jiit dafa am lii di corona. waaw ñu ngi xaar de toute façon enquête bi génne de manière formelle ñan ñoo ko def.

woo di wax ay wax yu doy man sama sax coupé parce que bon bëgguma woon bi quoi. lan lañ mën a eh, waaw xanaa def li ñu yoon may rek mooy def dem ci yoon parce lu mel ni ñëw fekk ay nit yàq seen i bagages vraiment xel xel mënu ko nangu kenn dina may suite judiciaire.